وعليكم السلام ما نقول دل دل تونتو شيء لاجين ملاج ما تونت لاجي كم سما خم خم الورد المعقوس من الله بواسطة الرسول ما يورد سرين بي ورد مريت ورد نك نجي نجك وهم يلان بعلم أقطابي برم طريقي الطرق الصوفية لتي أب كان نكون نتي نعم أمنا دوغ يوم دا يوم دا يور أي حسب أي أحساب يوم دا سخل دي توكتي برب دي كودف دي تيولو برامم دي خلات برامم ngir mu doon lu muy doxale diggam ak boroomam mel ne wasila mel ne yéegukaay mel ne iskale waaye da koy wutal waxtu bu jotee mu bàyyi lépp dem toog lu mu ko mënoon a fekk mu bako di teewlu boroomam di ko wird loolu mooy ab dog boo xam ne du dog benn yoon waxtu ne da nga koy def loolu yi nag am na ci ñoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko jox am na ci ñoo xam ne nee ñu dañ leen koo jox ci lu dul gént yonent bi moo leen feeñ jox leen ko boo dee xool ku mel ne abul hasan istazali yi as cheikh abdul qadir al jilani Cheikh Ahmed Tidiane yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. waaye muy dem ba ci sëriñ bi sëriñ bi bi mu ñëwee ci jamono dafa fekk Cheikh Ahmadul Mbusoo bi nijaayam yor wirdu Qaadir sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali waajuram bu góor yor wirdu Qaadir. ñoom ñi ngi jëlee woon seen wirdu Qaadir ci Cheikh Abdul Cheikh Cheikh. Ah, Sidiye mu mag ma Cheikh Sidiye Muxtaarul Kunti mu mag ma ñoo àndoon ñoom ñett bu soobe sëñ Mor Anta Sali ak Libaas Silla bàyyi sëñ Mañaaw Silla ak soxna Jang Silla libaas moom yi mu àndoon ak ñoom ñaar ñi dem gànnaar jëli fi wirdu Xaadir ci seex Sidi al Muxtaarul Kunti mu mag mi sëriñ bi wax ci masalik moom nga dégg mu naan xutbi raxa xawsil wara xutbi raxa al Muxtaari ka seex al Kunti si andoone moo ñu ko joxoon ñu daa dajale seen addi fii senegal at mu ne ku bëgg joxe sa addi te bokk ci ñoom rek kenn dem yóbbul la ko mu yeesalal leen ñaanal leen ñu dellusiwaat loolu moo doon dox ca mag ña bi sëñ bi ñëwee nag jël wirdu Xaadir wi ci waajuram sëñ Mor Anta Sali wér na ko juróom-ñetti at. gannaaw bi sëñ Mor Anta Sali génnee àddina dem na gànnaar ak tànkam ngir yeesal wér du woowu yeesal na ko fa dem na ba ca barabu Cheikh Sidi Mokhtar Kunti fekk fa doomam it ja doon mbir ma mu yeesal wér du wi ca moom. am na ci mbootum wér du wi loo xam ne it ci as kamara mi nga xam ne ku ne xam ne boroomub cër la woon bu làqu woon te nekk ndar ci la ko jëlee. ak yuñ ko batale woon yoo xam ne kiy doon mbootum wérdi bi moo ko koy laaj waaye dana am bu ma la ko doon misaal code bu mu koy jox buy xam ne kii moom wirdu woowu waaye ba sëñ bi dikkee ku ma sa ñëw ci moom rek du wax loola waaye ba sëñ bi ñëwee rek la tudd loola moo xam ne moo ko moom mu jox ko ko. gannaaw bi mu yor wirdu tijaan juróom-ñetti at gannaaw bi mu yor wirdu saasali juróom-ñetti at ñooñu nag ku ci ne dafa tërbiyew wird wi wird ko nam ko war a wirde sellal ko fonk ko teral ko. ba borom wird wa feeñu ko jox ko sirru wird bi jox ko ndigalul wird bi mu sanc lu kenn sañut bi mu demee nag ba gànnaar diir lim na ci géej gi nag dafa boole alquran ak tudd yàlla ak julli ci yonent bi làmmiñ wi di ko wax loxo bi di ko bind xol bi di ko fas di ko yëg cër di liggéeyal sallallahu alayhi wa waaye bi mu ñëwee ba gànnaar nag ngir àggale liggéey boobu ak mottali liggéey bi juróomi fan ci koor tollook xam nga ne sëñ Chouaïbou moom it juróomi fan la gane woon adduna juróomi fan yooyu moo tolloog yim yim jote wirdul maxuus min allahi bi wasilati rasul ndax yàlla dafa def benn bis mu génn dem sarsaara bi mu demee ba sarsaara bi muy xëysiwaat ci juróomi fan ci koor gi bi muy ñëwaat la egsi rek taseeg benn naar bu ne woon ci gàdd gi siyaare sëñ bi ba noppi naar boobu amurit la mu daal di ko ne tey de andil naa leen lu yéeme bis ne tey am naa sama wirdu bopp woo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko jox ci li dul gént ci tund wee laa taseeg moom mu saafonteeg man joxal ma ko boppam sama ko kon nag gaawal indi këyit ak daa masala ko ma njëkk la koo jox ku ñëw xasan kooku ay doom daanañ fi ñëw ak i mooy ki njëkk jël wërdul maxuus ñu tàmbali ko nag di ko joxe sëriñ bi di ko jox man ñi di ko jox man ñi kenn par kenn jox na ko sëñ Amsatu Jaxate jox ko ndigal mu joxe ko jox na ko maam Cerno Birahim jox ko ndigal mu joxe ko waaye noonu mu ko joxee nag ni la ni la ni la daa joxe wird yëpp it nag ndax am na wird wu ñuy wax al musabaatul ashri muy fukki yëf yoo xam ne bu ci ni juróom-ñaari lañ koy wird joxoon na maam Cerno Birahim ndigal ne ko ko yéene mu texee nang ko ko jox te nanga xam ne ku koy jëfandikoo duñ la bindal bàkkaar te ku koy jëfandikoo faw da ngay texe masa baatul asri boobu yi maam Thierno daan na ko jox ñu bari waaye noonu it la daa joxe du qaadir ak wirdu tijaan ak wirdu saasali yi joxoon na Thierno yëpp ndigal li ne ko ku la soob leen ko jox waaye nag bi mu am wii ci gànnaar nag ku muy joxati wii la lay jox waaye teewul nag bari na lool taalibi bu ñëw yoroon wirdu tiijaan mu yeesalaatal la ko ne la boroomam jox na ma ndigal ci ma sañ koo joxe kon joxaan naa la ndigal nga yor wirdu bi ba noppi doon taalibi Sëñ Tuubaa bari waa ne it ku doon xaadir dikk def ko jébbalu mu yeesalaatal la wirdu xaadir jox la ndigal nga di ko jëfandiku. yaakaar naa ne boo demoon Daarul Muxti am na ci seeni kilifa ñoo xam ne kii wirdu saa seli lay wird te ko ko jox jox ko ci ndigal te sëñ bee ko ko jox am na ca koo xam ne wirdu xaadir lay wird ba tey te maam Thierno ko ko jox te da ko ne sëñ bee ma jox ndigal naa ko joxe yow wérdal lii am ci ñoo xam ne wérdu murid bii la ñuy wérd am ñu boole yëpp waaye lépp génnut sëñ bi kon dafa mel ne ñu baax ñëpp dañoo boole lañ gën a baaxale boole jox ko ko mu di ko joxe ni mu joxe wérdu boppam. ba ca topp mooy ndax ku doonu murid da ngaa war a wérd maaxoos far force nga xam ne sëñ te bañ la déedéet ab sart la ci yeneen turuq yi ci des waaye du sart ci yoon bi ndax sëñ bi am na ñum ko daa jox am na ñum ko dul jox am na ñum jox ndigalul ñu di ko joxe it waaye am na ñoo xam ne nekk nañ feek sëñ bi sëñ bi di ko jox ñii mu nekk seen kanam te du leen ko jox ñoom waaye daal li gën a wér mooy nga jëfandikoo ko moo gënal sëñ bi te moo gën ci yow rit bi ndax moom day mboolem ñu jaxasoog moom ni ci keppaaram ba ci soxna yu mag yu tedd yooyu nekkoon di ko liggéeyal ci kër gi kenn ci ñoom ku ma xam ku dawul wér du maa xos amut ñoom ñëpp ko daa wér fàttaliku naa ci rek ñi ma mujj xam soxna njaxat si la ba ci soxna Fati Amar mina newon ci wetu seigne soxna bu ak soxna Awa Demba Touré ñoo ñepp ku ci ne ci sunu ngone da ngay gis ne bu takusan joté day yor dogam di wirdu xoss du wax ba kër mu yàgg kon lolu ñango ngi ci kër gu mag mu melne mourid bo xamne dal da nga bëgg dak dàkk bi da ngay yor sa dogub alquran bu dul yor sa dugub khassida bu dul di wirdu ma ci waxtom bo amé ngant ba xawa tardé nga fay ko leneen lu baax loo man nga di ko ca dolli te bu la yàqal liggéey boo xam ne dang nga cey wut loola lew loo sàmmee sa ngor ak sa njulit ak sa murit maqus nag am na akmal ak xafif ndax wi ci sëriñ yoroon nee na sëriñ am satu moo ko ko jox ne ko sëriñ Tuubaa moo ko ko jox woowu gudd wi mooy yu njëkk joxe waaye wi sëriñ soxna bu yoroon moom moo gën a mel ne lu gën a yomb moo gën a waaye woowu it am na wu gën a woyof waaye wi sëriñ soxna bu yoroon nag bokk na ci mujj mujj soppi ndax dana am lu mu ciy wàññi ngir ñenn ñi amut kii mën koo jëfandikoo te buñ ko jëfandikoo mel ne jëfandikoo ñu mat wa te mooy gën mooy gën a yomb ci ñenn ñi woowu nag boo demee sëriñ Soy bu mollu woon na ko jàpp naa ne sax mool ba la ko sabab ci man mi la jaare ndax sëriñ Cheikh Saliou moom a yónni woon ci moom di ko ci laaj ndigal ak bëgg mu jox ko ko mu bindi loo ko sëñ Abdou Lahad ba mu àgg mu bind aw kayit jox ko ci ndigal kayit woowee man mi la ko jox ma yët ko sëñ Cheikh sëñ Saliou ñu doxe ca far mbind moom mi bind woon seen iblaat yi bu ñu far ko mool mu ne nañ ko mool benn yoon ndax ko soxlaati wird bi ñu mën la koo kon boo gisee euh. mbind moom mi sëñ Abdul Ahad Sohaybu bi bind mooy mooy bi nga xam ne moo gën a waayef te ci ci te ci mujj soppi la bokk loolu la ko sëñ Mat Lamin Jóob wax moom sëñ Sohaybu moo tax moom moom la daa jëfandikoo teew nag boo ci jël baax na yëpp yem waaye bii it yomb na te mooy gën a yomb ci ku bëri wutu jot lool te boo ci jël rek ñoo yem ñàkk yor woon murid nak teewutu doon murid, waye murid buy jaamu yalla di jang alquran di jàng xasida boole ci diwut ma xoss nak japp na ni mo gënal sëriñ bi ku ko du def ñàkk ga def nak teewutu doon murid charte yi nak bok na ci nga baalex nga ñu togg la jëf bok na ci it nga di def gënaaw julli fajar bala jant fenk ak takusan bala jant so bu le rëccee ci suba gi man nga ko fay ba zawal ba iner wala iner moy mooy waxtu bi day soppiku bu le ci takusan gi man nga ko fay bëggee comme ni ñuy fayee julli bu la lor nga am day muxtaar am daruri waaye bu fekkee gone nga te xat na ci yow te mën a góo ko jàppale lu jafe la ci gone ndax boo ko xasee tàmbali na nga yëg ne faaw ngay jàngal xuraan sart yi mooy faaw ngay jàngal xuraan lu mu néew néew ñetti isib wala ñaari isib génn wàll tey faaw julli mbooloo ngay julli te yu baree bare bari dañ la koy tere kon boo ci xasee tënk moomatoo sa bopp am na nag giima la wax muy mustabaatul hashi boo demee ci moolub ma boobu tafal nañ ko ci boole nañ ko ca غوغو موم fukki يف لا يي واخ جيروم juroom يون يومنا لول تا سيغ بي sëñ خيل لها تغني عن الاوراق ولا يغني عنها ورد yuxni بوكاي داف nee ني ياغي ورد ورد ييب تا ne yaa ngi wirdi ووتو تا موم لا واخون مام koo wuutu نانكو جوخ la waxoon maam Thierno ne ko na nga ko jox taalibe yëpp moom ndigal ndigal lu matale la ci joxe جوخ كون جاب ناني كو ñëpp جوتي man nga jàpp ci ne ko ashib bi don seigne bi defalu ko boppam tànnal ko bu jox nu ci ndigal ñu man ca jàpp ba keru ñu man def ma ku amut kàttanu yor maaxuus ndax maaxuus kenn du ko ba di ko bàyyi te diis na sart yi diis na kon xaw a dem ba doon muskàllaf ba xool sa bopp ba man ko door koo jël ndax boo ko xasee jël doo ko bàyyi. Euh, kon maaxuus a ngoog musabaatul ashee ngoog xasida yi sëñ Tuubaa ngoog loo ci jàpp boo ko bàyyi boo ko bàyyiwut àgg sëñ bi incha allah.